dali nay ma ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal laan ñu Sénégal ak Côte d'Ivoire ak Guinée Conakry maanaam ñoo bokk jàngoro Assane Samb xëy jël ma di wax ne njiitu réew mi di Macky Sall man wa Dramane ak Alpha kenn ku nekk nangu wut a am li nga xam ne mooy ab dauphin maanaam kenn nangu wut a samp koo xam ne moo koy wuta ci réew ma waaye nag dañoo wax ne kundo bin ray sa maam boo gisee lu ñuul dawal dañuy bañ li nga xam ne maanaam moo dal Mohamed Ould Abdou Aziz sa Mauritanie daat leen di dal Mohamed Ould Abdou Aziz dafa jëloon Ould Gazawani daal di koy samp waaye nag ba mu jotee ci réew ma ñëpp gis nañ ni mu doxalee ak moom ndax dafa samp ab commission d'enquête dem nañ sax ba daal di koy woolu ngir nag mu daal di rendre compte ci ni nga xam ne maanaam moom la yore woon réew ma te lu mel noonu tamit gis nañu ko ci république démocratique bu Congo ni nga xam ne moom la Félix Tshisekedi di doxalee ak Kabila yéen kaay gi xëy ci Alassane Dramane Ouattara mi nga xam ne jëloon na Amadou Coulibaly ngir nag mu daal di koy wuutu waaye nag mu faatoo gis nañ ne partem ba bëri na ay cadre yoo xam ne mënoon na leen a samp waaye amul kenn koo xam ne am na confiance ci moom maanaam wóoluwu leen yéen kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu réewum Côte d'Ivoire jamono ji réew ma soo moytu wala ci musiba ma ba kumba la ndax am na ay manifestation yoo xam ne commencé na faa am am na ñeenti nit ñoo xamante ni ñàkk nañ fa seen bakkaan yéen kaay gi di Dakar Times mu xëy di ñu xamal lan ñu ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi ca réewum Côte d'Ivoire ñoo ngi sàkku Alassane Dramane maanaam deltu ginnaaw ci candidature am nga xamante ni maanaam daan na koy sàkko yéen kaay gi nee maanaam ci tàkk la jëm yéen kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Aliou yëkkati na la mu xam ne nee na Afrique de l'Ouest maanaam ci musiba ma bu kumba gu rëy ci la taxaw te mboo muy tuulee kaaw dina am te li koy waral mooy lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat li nga xam ne moo commencé xewu ca Côte d'Ivoire ak jéggi ne Conakry loole daat na koy wane yéene kaay gi de la turbine xëy ci beneenub jàppante boo xam ne am na sa Touba sa Janatu Mahwa ñi nga xam ne ñoo ànd ak Serigne Saliou Thioura ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak Aïda Diallo ni ki démb defante nañ ba ne saay am na ñu bari ñoo xam ne am na si ay gaañu gaañu am na juróom-ñett nit ñoo xam ne maanaam teg nañu leen loxo yéene réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu gi ëmb magistrat yu ñoom ñoo ngi mer ba tey ndax nag ginnaaw bi nga xamante ni juge Ngor Diop daan nay sous mandat de dépôt benn kilifa diine maanaam sa ñu daal di ko fay jëlee loolee moo naqari magistrat yu Sénégal nee nañu décret boobee nga xam ne moo ko yóbbu Thiès sa cour d'appel danañu ko attaqué mbir mi duñu ko bàyyi mu sedd benn yoon yéen kaay gii di li quotidien mu ñu xamal lan ñu bërki démb njiitu réew mi di wax ci lu ñi nga xam ne ñooy artistes maanaam ñu mën a xam kan mooy ab ab artiste ak kan moo ko doonul waaye nag ñi nga xam ne ñooy acteurs yi bi ñu leen laajee ñoom dañoo jàpp ne loole maanaam waxe wayaa wayaa la wax joojee daal ñoom jàpp nañ ne sincérité ak wax ju dëggu amu ca ñoom dañoo jàpp ne Macky Sall waxa ko neex muy wax waaye du loo xamante ni lu ko yitteel la yéen kay gi di Sud Quotidien mu xëy nag ci ñi nga xam ne ñooy hôtel yeeg jafe-jafe yi nga xam ne dund nañ ko ci coronavirus laas yéen kay dikkaat ci accident yi nga xam ne moo bëri lool ci yoon yi journal bi nee na ñàkkul réglementation ci lu jëm ci wàllum pneu yi bokk na ci li ko waral ndax na na ay accident yoo xamante ni ay pneu yu toj la at mu jot lu toll si juróom benn téeméeri nit danañ faatu ci ay accident yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy ci lu doy waar loo xam ne xew na ci réewum Sénégal waaye xew na ci yenn réew ci adduna bi maanaam nit faatu nga tëddee ak moom loolee nag am na ñu bari ñoo xam ne ñoo ngi koy def waaye nag ana lan la ñu si jublu ci la yéen kaay gi dikk ndax ne nañu fii ci Sénégal ci Kédougou ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre atum 2018 nemmeeku woon nañ fa koo xamante ni dafa faatu am ku yegg si kawam loolee la enquête bi wane woon waaye nag ci ñu fa wax a proposition de loi loi boo xamante ni daal képp koo xamante ni am nga sa soxna bu faatoo mën ngaa tëdd ak moom loolee ca diwaanu Maroc am na benn kilifa bu ko fa waxoon waaye nag ñoo ñooñu lan la ñu si jubloo ko ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci loole andi nañu ci ay leeral ma ngi ci réew mi quotidien l'observateur xëy yóbbu ñu diwaanu Jurbel ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu nekk ci kaso bu Jurbel amee nañu ko ndax ñooñee jaxanama la ñuy dund bëri nañuy faatu ca kaso bu Jurbel bëri na tamit ñoo xamante ni ñoo ngi leen fay teg fitna am na ñoo xam ne dañu fay rëcce di daw wàllum sexualité tamit dañu koy tudd lu baree bari ca boobale kaso yéenekaay gii du sunu làmb ñu xëy fekk fa Mbay Sàmb mi nga xam ne ay jamono mbër la woon daan nay wax combat Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux maanaam mooy combat du siècle te soo muytulee kaaw dana sa am ñu xeex ba na saay stade yéenekaay dikkal ñu si match bi dox tey jii diggante Barcelone ak Bayern diggante Messi ak Lewandowski journal bi xëy na ci man Manchester City gi nga xam ne maanaam Kalidou Koulibaly daan na ko yitteel loola maa ngi accélérer mbir mi ngir nag Naples daal leen koy jaay